alors ni ñu leen ko doon waxee suñu gan euh, Abdoul Mbaye la nekk ancien premier ministre jiite parti bi di acte di alliance pour la citoyenneté et le travail euh, ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal jàmm monsieur mbay monsieur le premier ministre maa ngi leen yàlla ñu yàlla boole nangul. Mm, jërëjëf Amine alors Chérif euh, bari na question d'actualité bokk na ci tey li xew assemblée nationale ñu bàyyi la nga tàmbali. Mm, li xew mu mbiram motion de censure bi ñu ko doon wax sànq sax monsieur le premier ministre yow bokk nga ci premier ministre yoo xamante ne jëm nañ laa daaneel ci assemblée nationale ci wàllu motion de censure la wante laataa loolu nag li ñëpp bokk mooy alal ji nga xam nga Cour des comptes barki dem am benn rapport bu ne bi am nañu ci duunal seeni i poste ba scandale boo xamante sénégalais ñu ngi koy ñawal bëgg nañu aussi nga joxoon suñu xalaat dèjà ci mal gouvernance bi nemmeeku fan yi ak ñi nga xamante ni quand même dañ leen dénk alali Sénégal ñu sàcc ko. waaw man déglu naa déclaration politique générale bu premier ministre Amadou Ba euh, am na lu ma ci jaaxal mooy dégguma ca dinañ xaa dinañ xeex xaalis bi nga xam ne ñu ngi koy pasar pasare te bés bu nekk. mu am lu feeñ bés bu nekk mu am scandale bu bees man maa ngi fàttaleeku bi ñu bi bi bi may def sama déclaration politique général lépp li nga xam ne lii dafa jëmoon ci xeex sàcc xeex sàcc alelu nguur xeex euh, indi reddition reddition de comptes maanaam ku sàcc itam yoon da war a dal sa kow mm-hmm. mais loolu dafa amoon solo li déglu naa ko ba mu jeex takk dégguma benn yoon mu ne fas nañu yéene xeex loolu te bés bu ne mu am lu lu lu génn. Hmm. war nañ ci jóg. ca ngoon nga la ndax boo boo toogee yore budget boo xam ne bii moom la ñu génnee ba nangu ko voté ko diffisit bi bari lool ànd ak xaalis booy yàq mais li nga war a jiital mooy alal bi nga xam ne bii mi ngi dugg ci kees gi. nañ ko sàmm aar ko. bañ ko yàq bañ ko pasar pasare te loolu mu ngi jaar ci xeex corruption ak itam képp koo xam ne gis nañu ne lekk nga ci xaalis bi laal nga ci xaalis bi ja jaaru ci yoon bi muy génn ci caisse état mu ñu topp la yoon loolu de reddition des comptes waaye dégguma ci benn baat bu jëm ca loola mhm. ci war a xeex loolu te loolu dafa bokk ci li mën a indi euh, gestion sobre et vertueuse bu fekkee ne président de la république mu nga ca ba tey ndax ca ca ca loolu lañ ko lañ ko faloon en 2012. mais est-ce que mu ñàkk koo xam mu jël engagement bi tere na quand même yii bu amee quand même corps bu sérieux ni Cour des comptes génn lu ni mel warul am suivi même au-delà de Amadou Ba justice aussi def ci liggéeyam. waaye ah am na wàll boo xam ne Cour des comptes moo ko moom parce que ndax Cour des comptes ci boppam am na pouvoir de sanction vis-à-vis de des comptables publics certains comptables publics. Euh, même debe mën na la teg debe nga nga fay nga war a fay mm-hmm. mais. normalement ci yoon yoon yoon yoon dafa war a topp ñi nga xam ne ñii eh, doxaluñu yoon waaye day man awma ci yaakaar fileeg eh, mandat bi jeexu ñu mën a comprendre lu toll ni Covid mbas mi nga xam ne dafa sonal àdduna bi yëpp Sénégal bi ñu ci tollee aussi nit ñi même solidarité am ay sénégalais sax jël nañ alal jox ko état état ngir mu xeexee ko mbas mi ay doomu aadama di ko aakimoo. gis nga benn bés sama xol jóg na. ba ma wax loo xam ne xëy maa ngi ko doon rëccu waaye maa ngi ciy dellu si dama mës a wax ci di waxtaan ak euh, suñu ay compagnon ma ne nit dañ ay dëmm lañu xam nga lu tax ma ne dëmm. loolu ëpp na wax c'est grave ah oui ëpp na wax waaye waaye du kuy lekk nit man góoma mm. dëmm mooy kuy dox loo xam ne mën na indi nit ñàkk bakkanam <coughs> yow alelu état. Mm. mu war a jëm ci. bu war a jëm ci wàññi bakken yuy rot nga koy lekk yóbbu sa kër même waaw loolu loolu loolu c'est c'est man xaw ma naka lañ ko ñeme mais am na nag ci ci ci gouvernement bi am na ci ni ñu doxalee finance publique am na ci ñu doxalee réew mi ci ci Sénégal mm. te ci li ma xalaat man loo ci indi du ñu génn ci loolu mm. muy Covid mm. muy emploi des jeunes muy muy leneen lépp loo xam ne xaalis a nga ca ñoom ñu ngi jëkk xalaat lan laa ciy jël yóbbu sama. da leen woowe nooxoor ah nooxoor comme yow Saalum Saalum waaw ñëw ba jox dëmm ah. nga xool mooy mooy li nga bëgg a la respons monsieur Mbaye quelle est la respons euh, responsabilité du chef de l'État président Macky nga xam ne ñoo ñu fa nekk moom moo leen fa teg. te donc xam na yi xew te boo demee sax moom moo koy njëkk a xam amul boo demee moom mooy njëkk a xam yëf euh, nit ñi li xew lan moo tax ñoom du leen jël jébbal leen. waaw man li ma li ma li ma njëkk a jàpp mooy xëy na bu buy nit ki di def xamul ba xamagul nañ ko nangul loolu. waaye bu xamee sanction na am mais depuis 2012 ana koo xam ne lekk na fi ay milliards ñu topp ko yoon tëj ko kaso. li ñu gis kay mooy am na ñoo xam ne waroon nañu leen a topp. am promotion. door ko sax waaye bi ñu demee ci moom daf leen bàyyi. Hmm. des topp ñi nga xam ne ñii dañu jàppoon na ñoom du duñu duñu ànd ak moom. Hmm. te kenn la woon yaakaar na ba noppi. bu fekkee ne ci banqaasu état ay société nationale ak i sax ay direction am na koo xam ne dénk nga ko mu wax ko doxal laajuloo ko bëgg naa lépp dox lépp jaar ci yoon muy njëriñ ci askan wi li ngay li nga koy laaj mooy élection bu ñëwee te wax na ko dégg ngeen ko dégg nañ ko election mm-hmm. ñëw na ku ci perte sa poste ma dàq la kooku mooy li ma la dénk dénkuma la ko nga war ko teg ci yoon doxal ko muy njëriñ ci askan wi denk naa la ko nga war ci jël def sa politique. jël xaalis politique boo xam ne day doon njëriñ ci man c'est ça le problème. Mm-hmm. ana critère de compétence. Mm-hmm. ana critère de bon fonctionnement. ana critère de d'honnêteté dans la gestion sobre et vertueuse. ma dellu si ci li nga xam ne ni moom la la doon oote en 2012. te mu am solo lool ndax man lu noonu mel moo taxoon ma mën a ànd ak moom mais ci jëfinam. dëgg-dëgg amut. waaw euh, justement euh, monsieur le premier ministre euh, tey ñoom ñu ngi toog premier ministre war fa jaar question de motion de censure boo xam dañ koy posé est-ce que amul possibilité pour yónni benn signal fort pour lii maanaam si wàllu Covid bamboula mais aussi pour troisième mandat boo xamante dañ koy wax est-ce que amuñu occasion tey bu bu am maanaam pour envoyer un signal fort au président de la République muy démettre le gouvernement. signal for bi naroon na am bu fekkee ne opposition eh, ànd na doon benn mm-hmm. ndax Macky Sall Benno Bokk Yaakaar amuñu majorité assemblée nationale c'était une excellente occasion waaye li metti mooy opposition ci seen biir dañuy buuxante di rawante jiital loolu duñu jiital mëbëtu kii nañ ko nasaxal kii nañu woon Sénégal ne ànduñoo ak moom te majorité sénégalais ànduñoo ak moom doo tëb tëb rek lu mel ni motion de censure yow ci sa bopp amuloo majorité absolue di ko doxal te doo diisoog ñeneen ñi da ngay diisoo déggoo ci loo xam ne lii dafa dafa dafa dafa dafa am maanaa parce que yàkkamtiwul kon yow askan wi fi a fait une erreur ñëpp ànd ci noonu ñeneen ñi waaye boo boo ootee vote ñoom li ñuy jàpp rek mooy euh, jàllul donc euh, euh à, la limite <laughs> message fort bi ça risque d'être un avantage au profit de, du, du premier ministre est-ce que ça pose man maa ngi fàttaliku maa ngi fàttaliku sama motion de censure ndax ji jiitu naa ko ci man sama motion de censure onze députés ñoo ko indi woon onze députés PDS waaye teg ko ci il a blanchi de l'argent qui était déjà blanc Ambelé alalu Ambelé ji ne la mais mais mais mais bi ñuy voté dix députés ñoo voté kon loolu nangu naa ne am naa fa ndam ndax c'était du vote automatique waaye teewul am na kenn ku ku ci roccee mais lii nga xam ne mi ngi ñëw du ñàkk opposition dina am ay ay voix yu gën a sakkan loolu waaye ba tey li ñu nar a jàppi mooy. amadu baax rëcc na amadu Ba confirmé nañu ne. waxtaan li muy doxalee. monsieur le ministre ah, monsieur beneen beneen beneen euh, beneen mbir bu nga xam ne. ñu ngi koy waxtaanee léegi muy affaire passeport yi. Hmm. amoon na fi mbiru passeport diplomatique yu impliqué ay euh, ay député. loolu jeexagul pënd bi wureegul ñu amaat yeneen mbir yu feeñ barki démb Ndiaye wala démb rek muy passeport de service yi mu mel ni scandale bu doy waar loolu nan nga ko mun a jàngate et ki tamit naka lañu ñu a xoole ba lu mel noonu di am ci réewum senegal ba toll ci dayo bi mu toll nii. bon d'abord li ñu war jàpp mooy corruption bari na ci senegal corruption bari na waroon nañ ko xeex. jàppoon nañu war ko xeex ndax xeex nañ ko ndax ñu ngi dox ay jéego yoo xam ne mën nañ ci jàpp ne sopp nañu war a xeex corruption looloo amul loolu moo amul euh, xoolal Mbacké Dembo Ndiaye OFNAC xam nga nag dañ ko taxawal dëgg la man maa ngi fàttaliku benn euh, daje boo xam ne président de la république dafa ne yi yi ñu fi jiitu ñoo ko moom opposition waaye nag ñun ñoo ko moom. xam nga ndax yéen yéen ngi koy fàttali. si si mm-hmm. waaye ki fa jokkoon a ne génne nañ ko te jaxalul. Nafi Ngom Keïta. c'était illégal niñ ko dindee. teg fa keneen. muy liggéey. di yóbbu dossier ca procureur. procureur teg ci. loxoom ne du dem. mais procureur boobu tey jël procureur tey procureur boobu doon calé hmm. dossier yi. moom la ñu jox of nag. ndax loolu mën nga ci jàng ne ñu ngi jóg war a xeex corruption amul am na ay régime politique yoo xam ne dañu soxla corruption dañ ko soxla ndax moo leen di dundal bu fekkee ne teg nga doxal war a doxal politique ci jënd nit ma yem ci loolu rek mhm. waxuma sax liy des sa poos waaye bu fekkee ne jàpp nga ne sa politique yaa ngi ko war a wékk ci jox naa la votel ma jox naa la votel ma ngay ngay ngay votant simple wala ngay ngay ngay leader euh, ay électeur fa nga am am am boobu xaalis foo koy jëlee corruption dafa ànd ak régime politicien te nag ñëpp war a nangu ne loolu lañ fi am c'est clair. waaw mais mais mais mais euh, ministre euh, yaa ngi wax léegi ci OFNAC bi euh, démb ci sunu télé fii dañu invité woon un ministre pour citer ko Cheikh Oumar moom mu ni muy junj sax Papa Ngagne Ndiaye di ko wax ni ko OFNAC. couleur OFNAC couleur OFNAC yi sax. couleur benn parti d'opposition la muy Pastef parce que vert euh, blanc ak rouge moo ci nekk. yow loolu boo ko déggee quand même est-ce que c'est pas absurde comme propos ci ku mel noonu am ay ndomb tànk yu mu am ci réew mi. kooku loolu loolu loolu du waxu nit waaye ndax ver rouge jaune loolu sax couleur nationale la donte nangul nga ko parti mu doon couleur am ngay couleur nationale waaye xam nga li jéggi dayoo dëgg dëgg dëgg. mooy lu mel ni direction générale des impôts ñu def ko beige et marron lu mel ni TER ñu def ko beige et marron lii ma gën a jaaxal nag man mooy les bus Dakar Dem Dikk ñu def ko beige et marron xale yi di toj ndax gis nañu beige et marron ñu bind ci Dakar Dem Dikk un patrimoine national <laughs> ya bu ci ay boo seetee sax le l' institut supérieur de de de de la formation professionnelle là les instituts supérieurs de la hmm. formation professionnelle. Beige et marron. loo xam ne lii ñëpp a ko moom. nation bee ko moom askan wi moo ko moom nga jël di ko aaki moo di ci teg sa couleur u parti mais c'est de c'est une bêtise incroyable ba noppi muy indi loo xam ne da nga ko bañ ngay fàttali ne non. ma ma dellu si ci ci ci ci bus Dakar Dem Dikk patrimoine national ñu ngi lay fàttali ne c'est un patrimoine national. te nga bàyyi ci ba tey mais loolu yow ba nga nekkee premier ministre. ban jéego nga ci def pour dindi ko parce que nekkoon nga premier ministre te pourtant bus yooyu mi ngi doon dox à l'époque pourquoi euh, pourquoi woon ay actes forts pour euh, couleur yooyu dañ par exemple. d'abord fàttaliku ma sax à quel moment la couleur yooyu dikk. ci dégg dëgg parce que am na euh, itam quand quand El Hadj Abdi sotti mais à moment donné dama jóg taxaw ne mais berger marron bi fan la Moussa Diop fan la nekk te yow bi ngay nekk premier ministre lu ci bëri c' était Dame Diop qui était au niveau de Dakar Dem Dikk au ah, début de la déclenche vraiment j' avais pas de contact avec euh, mm-hmm. Dakar Dem Dikk mais man sama attention mi ngi mi euh, ngi dikk dëgg-dëgg élection législative ci campagne élection ba ci abribus yi ñu def ci berger marron wala les les les pick-up euh, pick-up poste ñu ñu ñu ñu ñu def ci ay affiche président de la république ñu ñuy campagne. mais mais monsieur ah, ku mel noonu ndax ndax damay dellu ci li ma wax koo xam ne kii loolu noonu la sa parti di di di doxalee mais bul ñëw naan. Euh, kii couleur u Pastef la. loolu est-ce que c'est pas euh, benn tard de nos hommes politiques Sotrac. c'était vert euh. le PS moo fi newoon euh, Dakar Dem Dikk jaune bleu c'était le PDS aux couleurs mm. du PDS ni euh, APR ñoo teg marron est-ce que du benn tard de nos hommes non gis nga mais c'est vrai parce que nag c'est la même culture mais attention bu fekkee ne yaa ngi ci vert le vert c'est la couleur c'est une des couleurs nationales du drapeau national loolu dafa di benn ñaareel ba xam ndax yéen a ko koy fàttaliku à l'époque coopération bi c'était avec la la RATP RATP en France sévère maanaam loolu sax xel man na ko nangu ci dëgg-dëgg yaakaaruma woon ne. xalaatuma woon ne couleur verte bi couleur couleur PS la woon ci dëgg-dëgg. c'était pas c'était pas la culture des des des gens du parti socialiste ah, ànduma ak ñoom ah. waaye da damay wax rek te. noonu noonu ko daan defee de waa parti socialiste aussi. par contre par contre bleu bi moom dañ ko bleu jaune dañ ko indi ndax PDS c'est clair. waaye c' est la même culture aussi PDS ak euh, ay Cheikh Oumar Anne ak yooyu. yaakaar naa mais monsieur le premier si loolu. mais yow yaa yaa ngi wax même culture mais yaa PDS ànd ngeen ci élection yi mujj na. waaw mais loolu loolu kenn teewu ko kenn terewu ko. Ah, ñoom ñu doon def loo xamante ne même culture la ak Macky Sall nga ànd ak ñoom. est que loolu aussi ah, cohérence am na foofu. ah cohérence day am cohérence day am ci mbëbët. quel l' objectif. Hmm. am na ku toog ku yàq. nga bëgg mu dem nga seet naka ngay jëf ba mu mën a dem bu fekkee ne mënuloo ko yow kenn nga ànd ak ñoo xam ne dañ lay ko njëkk yàq parce que waa wax nañ ko ñoom comme même pratique la ak Macky Sall te même famille la ñoo ànd ak ñoom aussi est-ce que laay waxee. waaw mais ànd ak moom ànd ak ñoom ba fan ànd ak ñoom ci mbëbët boo xam ne bii moom mooy sañu mbëbët. ñu bokk nasaxal Macky Sall ci assemblée national ba noppi oote intercoalition ndax wàllu rekk mënu ko woon ak euh, Yewwi ba Macky Sall bu fekkee ne amul majorité assemblée nationale te looloo am li muy oote troisième mandat dafay am luy wàññeeku ci moom. Marcel justement parlons nag ce troisième mandat parlons de ce troisième mandat monsieur le premier ministre képp koo xam ne mm-hmm. Mm-hmm. àndoon na ci Macky Sall li muy doxalee du yoon. ci tudd nañu li jëmoon ci ci li jëm ci corruption yeeg yooyu mm-hmm. mën na fi indi loo xam ne ni dina yàq réew mi ci oote troisième mandat kon am na solo élection législative yi mu bañ ci génn di bakkoo majorité mais loolu man jaraloon na ma te te moo am. ma bañ a nekk candidat waaye. jàppale di di di di di di di góorgóorlu ba mën indi. lire nga ko démb mu wax ci Washington Post ci troisième mandat. moom laa doon New York Times lire nga waaw waaw waaw am am na lu ma ci gis mais loolu nag vraiment man man. <laughs> c'est vraiment ah, li li li li ma ci mën a wax daal nee na sa débat juridique ne mais le débat juridique se pose forcément gis dafa am loo xam ne sax dañ koy faral di fàtte loi day am exposé des motifs gaañaa ngi wékku rek ci constitution constitution constitution li mu wax nul na peut faire de loolu moom li ñu ci mën a wax bari na li ñu ci mën a wax bari na te te te te yomb na jàpp oote na lii laa bëgg voté nañ ko génn ci moom ak ministre bi ko defal constitution bi ñu ne nii la du ma am man Macky Sall deuxième mandat boo ko wax bind na ko kon loolu leer na waaye ñun ñoo voté loi du député référendum la woon 2016. yaa ngi koy fàttaliku. sénégalais voté. kon yow sénégalais man sénégalais mais boo demee ci exposé de loi bi. loo cay fekk benn c'est la dernière phrase constitution bi c'est la constitution de 2001 qui est révisée constitution 2001 lu mu wax deux mandats mënu wees deux mandats waaye nee na itam am na lu bees lu ma ciy indi le quinzième point quinzième point bi mooy lan mooy intangibilité maanaam lépp lu jëm ci élection président muy durer cinq ans muy euh, les conditions de vote muy deux mandats consécutifs mu jeex loolu loo koy jàppee. kon deux mandats yi des na ci li ñu ci yokk mooy consécutif dëgg la ca booba am na lu mu ci doon làq c'est clair hmm. damay def na Poutine. bu ma defee deux mandats mën naa toog benn mandat dellu si ñu ngi ko doon xalaat moo tax it mu yokk ci consécutif waaye deux mandats yi moo am ba tey depuis 2001 loolu indi ci c'est c'est clair. juridiquement man xaw ma. Mhm. man de loolu laa voté xaw ma nag keneen. ci ndax lool ci loolu la ñu oo wax nañu ne lii ci lii lañ leen di oo ngeen war ko voté. D'accord. Alors, Monsieur Mbaye... Retournez à l'exposé des motifs, c'est important. Effectivement. Alors, Monsieur Mbaye, euh, j'aimerais qu'on revienne sur euh, réellement le pouvoir du Premier ministre. yow mi nga xamante ne jotoon nga ko fi nekk euh, parce que c'est un poste qu'on a beaucoup attendu, son retour en tout cas, gannaaw ba ko njiitu réew mi annoncé il y a quelques mois de cela, et après l'avoir mis en œuvre, donc le, le Premier ministre, son poste est, est revenu. Est-ce que tey dans un pays, dans un régime présidentiel aussi fort que celui qui existe au Sénégal on peut réellement s'attendre à ce que euh, pouvoir bu premier ministre bi euh, ñu koy euh, ñu koy xaar ci situation de crise yi ñuy dund euh, comme par exemple la la malgouvernance ou bien li nga xamante ne moom mooy jëm ci wàllu koom-koom ak yi di mel. Hmm. donc gis situation de crise boo war a xeex da ngay nangu ne c'est une situation de crise ça c'est la première chose hmm. man yomboon na ci man ma def. déclaration de politique générale ndax bi ma ñëwee y avait crise le bilan wane na ne y avait crise mm-hmm. ñu nekk di xeex loolu te boole nañ ci crise des finances publiques une crise économique une inflation galopante du régime libéral une inflation en yëpp amoon na mais te ku nekk ñu ñuy fàttaliku ne président euh, Ablaye Wade bi muy campagne eh, nee na de toute façon juin duñu mën a fay salaire yi loolu c'est il y avait une situation de crise il y avait même la faim il y avait la famine au Sénégal yomboon na ci man ma lii mooy crise bi ñële ñoo ko fi indi dañuy indi leneen mhm. mais yow yaa ngi ñu fal nañ la premier ministre nouveau chef du gouvernement kan la fal. président de la République. mais surtout l'ancien chef de gouvernement. kon xam nga munoo wax ne crise amoon na. Mm-hmm. yaa ngi naan crise bi si ci crise am na sàcc am na corruption et mm-hmm. mais moom mënu ko. loolu mooy problème bi ñu ñu nekk tey mënul wax leneen sudul li fi am baax na xanaa boog dañuy gën a dëgëral. munul ne li fi amoon baaxul nañ ko dindi ndax ki ko fal moo indi lii et c'était très difficile comme situation yërëm naa ko entre nous euh, Amadou Ba mm-hmm. euh, ndax bu yëf si neexoon mm-hmm. entre nous le Macky Sall du indiwaat premier ministre Euh, monsieur le premier ministre. kon crise am na euh, euh, ndax premier ministre c'est un fusible d'abord. Mm -hmm. ça saute. c'est d'abord un mm-hmm. bu fekkoon ne. bon waxuma ko ci dundam particulier waaye ci wàllum politique Macky Sall dafa siis bu fekkoon ne succès am na crise amul premier ministre du dellu si faut que ce soit clair donc crise am na mais premier ministre mënul xeex crise hmm. donc on disait que li mu nekkoon président moo tax moo tax boo ko dégloo mu naan consolidation euh, mënul xeex crise di bu waxee waaw de temps en temps nga dégg amélioration santé amélioration euh, gestion budgétaire mais mais du ci sori du ci sori. mais monsieur le premier ministre li ñuy wax sànq ba léegi euh, que ça soit euh, problème de gestion yi. Hmm. sàcc xaalis yi trafic yooyu yëpp. les sénégalais sinon la majorité ñoom li leen yitteel mooy naka la ñuy def ko loolu dootul amati mu dakk bu fekkente ni ki nga xam ne moom moo ko war a dakkal defu ko comment euh, sénégalais yi naka lañ mën a. loolu daal lenn rek ko mën a indi. 2024 Macky Sall génn ñu indi beneen régime beneen régime boo xam ne du doon régime politicien du jiital xaaral ma neexal électeur ci jaarale ko ci xaalis xaaral ma neexal grand électeur jaarale ko ci xaalis. xaaral ma jiital doxalin boo xam ne li gën ci Sénégal laay doxal ñu fal man pour prochain mandat ñu bañ ma fal je m'en sama yoon nekku ci naa doxal daal loo xam ne lii moo gën ci Sénégal jeex na tàkk. Hmm. bu fekkee ne Sénégal yi ndax nag ñaar ñaara am benn bu fekkee ne da nga toog gañe nga toog nga hmm. bu fekkee ne jàpp nga. bëgg beneen mandat boo bëgg leen beneen mandat tu es libre tout de suite mën nga engager processus bu defaraat bu fekkee ne bëgg nga beneen mandat ci ñaar nga koy mën a teg benn naa am résultat bu baax sama askan votel ma. Macky Sall la. il a été élu par 58 pour waaw mais ca booba. doxalin boobu ci la ñu nekkoon ah. 2019. et ça c' était les premiers en tout cas ñi ma ñi ma fi to ñi ma fa toog ci ci ndigal yi sax. ma doon jot nga dem je parle de sa réélection en 2019. bon la réélection attention. hein, quoi, sa ça on, on peut en parler mais man mën na am lu ñu ci wax. Hmm. mais réélection bi li ko gën a indi mooy parrainage. wàññi candidat yi. def sa calcul et cetera mais c'est peut-être pas le le ñaareel ba bu fekkee ne jiitaluloo naa am résultat ñu fal ma falaat la yaa ngi jiital politique politicienne na am xaalis bu bëri joxe ko ñu mën ma fal te bu boobaa xaalis bu bëri boobu mënul jógee ci feneen su dul corruption c'est y a pas amul ñaari yoon on va retomber bon. dans les mêmes travers peut-être une question économique euh, mois de novembre bi euh, inflation dem na ba 14 pour euh, on n'a pas vécu ça depuis 2006 euh, te dara wonewul en tout cas que dina wàcc parce que ak situation globale bu am ci àdduna est-ce que euh, analyse bu ngay def par rapport à ça mooy que on risque d'aller vers encore inflation bu gën a bu gën a forte au Sénégal inflation bi jeexul man ci li ma jàpp xëy na dina stabiliser waaye gis nga inflation liñ ci war a jàpp mooy li mu génnee ci poche su Sénégal bi li mu wàññi ci pouvoir d'achat donte dem na ba xaw a taxaw ndax inflation bi yokkute la mais fi mu àgg indi na sénégalais yi sonn nañu les sénégalais sont fatigués les sénégalais prix, sont de plus en plus fatigués ils ont baissé les prix je dis pardon prix denrée yi wàññi na non bàyyi loolu rien n'a changé avec le discours de loolu loolu loolu nañu soble ah, soble ceeb diw du dégg nga li ñu wax ci soble bi waaw non attention waxoon nañu dañuy wàññi mais mënuñu ko nañu xaar ba production locale. soble soble mbay mi la ñuy wax waxuñu soble. te xam nga booy booy booy booy wax lu jëm ci inflation bi hmm. itam. am na wàll boo xam ne jóge na bitim réew. waaye am na wàll boo xam ne jóge na ci ñàkk faydaal bi ñu ñàkk faydaal mbéyum Sénégal. Hmm. production locale ndax dugub. lu tax dugub tey di jar huit cent francs le kilo cent sept huit cent neuf cent même Mhm. parce qu'on a négligé la production locale. d'accord oui. alors. Euh, monsieur. oui oui non dernière question. dernière question motion yaa de l'opposition bi question bi nii laaj sax mooy est-ce que tey waa waa wàllu maanaam seen coalition bi dinañ adhérer ci motion de censure bi nga xamante ni Yewwi Askan Wi bu fekkent ne àndu leen ban wane ko ci sénégalais est que du am lu mu yàq déjà ci ànd bi. Mhm. au niveau de l'Assemblée nationale et au-delà. non li li lii nga xam ne lii moo mën a yàq ànd bi mooy ñàkk bu bu fekkee ne ku jóg rek da ngay jël sa initiative bu bokk te doo ci waxtaan ak keneen mais ñooñu duñ ci. kon bi amul maanaam yow ñëwul ci wàllu pour diisoo bi yéen. Eh, oui ak man mi ma waxoon man je suis pas député taxawal nañ ko. mais c'est député yi bon mais ça plus comme ça léegi député yaa nga foofu ñu toog député yi nañu diisoo seen biir te bañ a toog rek naan naa naa jiitu ci. initiative bi ba ñëpp dégg ko c'est pas ça l'objectif. parce que li mu mënta comprendre mooy ñoom député en tout cas Yewwi nangoo voté budget Sénégal ak ministère yëpp ba pare doog wax waxu motion de censure. loolu mën na ne bu fekkee ne am na bu ndaw boo xam ne dañ ci bëgg a duut baaraam loolu mën na ne. Mm. exposé de motif merci euh, Chérif euh, a dem assemblée xam nga ko édition spéciale donc c'est bon. <laughs> merci beaucoup monsieur le premier ministre Abdoul Mbaye ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax di fàttali ni itam yaa jiite acte di euh, alliance pour la citoyenneté et le travail merci beaucoup. merci beaucoup jërëjëf merci ñu jàll ci nu l'observateur ak journal record.